nuyu aa la. da nga war. sant. dañ laa gën a gis. waa Thiès président. Ah. <laughs> mais da ngaa fer da ngaa ñëw rek loolu Matar Mbaye ambulance dégg naa yaa ko yóbbu Mbour tey ko fa ay weer. sama rakk la sama jarbaat la sama xarit la. ñoo am relation yi bi Mbour la. yàgg naa ko wax. Euh, bu mag. kon Mbour ci Thiès la kon mbëri Mbour ak mbëri Thiès benn lañu. ku si bés. waaw ah, incha allah dañu lay jàppale parce que yàlla def na mi ngi bëri naaru Sokaas. mok général ñu bokkon bés ñu bokkon ben semaine bu ñu préparer tay ñu bokkaat ko ah donc dañ leen di ñaanal ñom ñaan ñom rek yalla may leen ndam seen inshallah ba mbor jëm mom lu muy wajal wa may wajju reuy lu rëy. dañu bàyyi ba semaine bi jall mais dañoo gis Eumeu sen ba nga jógee ci mom ba léegi defo ben sort da nga tok mu rek japp sa jambu waaw dafa am bo ci jógee da ngay wat da ngay reculer wat xol defaraat say mbokk am defaraat ci loolu lañ nekkon do génn nañ bu wax jotté dañuy wax bu jëf jotté ñu jëf est-ce pare na pour jëlaat roi des arènes bi dugalaat ko Mbour. wax ko bu yàggul sama suwee yëpp tey mooy jël ko pour une troisième fois lu benn mbër musul def. kan nga am yaakaar di nga ko fekk ci moom ci kan nga am yaakaar di ko fekk mu yor ko. man ci doon rek man maay seul contre tous maay bëre ñëpp man. jaajëf jaajëf.